arbitre bi sifflé na combat baa ngi noonu dox ci diggante Boy Diobass ndaysaan ak Pape Mbaye Boy koy am lu mu koy faxas ndaysaan Boy Diobass ndi joor Pape Mbaye càmmoñ Boy ndi joor Pape Mbaye ñoom ñaar a ngi noonu Ndeysaan Boy Jabaas ak Pambay Ndeysaan ñu ngi noonu ñoom ñaar Ndeysaan ñu ngi noonu booy Jabaas ak Pambay combat baa ngi noonu ñoom ñaar Boy Jabaas am na lu muy dugal ci ngembali ma nga ñuuxaat ngembali booy Jabaas Pambay ñoom ñaari xale yi ñu ngi lewaatoo ba tey Pambay pied gauche Boy Jobaas pied gauche ñoom ñaar garde normal la bu ñu xeexee di nga gis xeex bu neex waaw waaw ndax ku ci nekk gauche ngay cokkaasee doog a indi arrêt de droit Boy Jobaas sank atte nañ mu ne def leen ndànk dama am bopp daw na jëli ko Boy Jobaas jëli na ko Pambay daan na wala déet Pambay daan na Boy Jobaas Pambay daan na Boy Diobass Pambay